non dina way après. waaw sama gaay yi. yóbbul ma Diop de Diop de ak Farbu de Malika. or nga ne ko organ ci la jar organ bu far organ ba benn la rek su ma nee organ waaw waaw organ bu far bu jar dafa juum lamin la ci ne maa ngi jëm auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi bu ñu sante yàlla rek di julli si te bu tedd bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay gudd fan bu dee ak wér gu yaram du ñuy waa parce que surtout waa unité si sama waa koñ waa Fadia gente bi 1 gente bi 2 maa leen ziar bu wér di leen nuyu passage di nuyu sama di la presse maa bu baax di nuyu le promoteur Fallou Ndiaye di nuyu ku ma àndal Ibuloo bu wér a wér a wér a wér di nuyu tamit sponsor yu ñu sol ku si mel ni Sibsi Karaas ak beneen beneen moom yaa ma gën a xam waaye daal ñooñu nuyu sponsor yëpp waaw di waa di waa Parcelles yëpp 1 ba 26 ñu ñëw jàppale seen doom day Farou Diar di woo monsieur le ministre Amadou Ba non xaaral do may ñëw fu ma fu ma tur ma parce que Serigne ma woo fu may ma tuuti rek. dégg nañ la yàlla di julli Seydina Mouhamed di sant samay ñaari waajur di nuyu assistance bi ñu fi toog ñëpp surtout les presse en ligne am amuñu seen fay parce que ñoom ñu buñ siwee wala ñu ñuy xam ñii ñoo tax kon amuñu seen fay promoteurs yi nag gën a jox seen gëdd waa presse bi jox leen seen gëdd bu baax a baax a baax di ñaanal sama yaakaar tey ëllëg muy Serigne Saliou Mbacke yàlla yokk ay leeram te tax ñu si barkeel di ñaan nag yàlla suñu borom dafa am seen benn feral boo xam ne dafa def soog wàññeeku muy fàllu ñu ngi koy ñaanal yërmande yàlla bu baax a baax wàcc ci kawam suufu Touba oyof ci kawam maa ngi sama papa Zoungule l'international may la doole may la xaalis mooy nii sànqee sama doom yaay waa benn baraag bi. kaay eh, kaay li nga koy bañ li nga koy bañ bu ko def waxat sa digganteeg organe eh, eh, farbu jar. waaye kii sama digganteeg farbu te di nekk semin la neex benn naxari benn dàqal mu naan marul dàqal ma ngi koy jeexal a mar te man dàqal ma ngi koy jeexal laa moom dañ koy dàq mu naani ay wax laa ko wax de dañ koy dàq moom mu naani man kenn du ma dàq dama mar damaa sëgg di naan xale laa damaa nekk si yoon gëm li may def waa yëmbal yónni ma yàkkamti ma taxawaalu waru ma du ma njoolu como como fii def naa fi lu ne dàq ji naa fi ku ne ku ne daw na fi man kii du daw de kii du koy daw de kii du sax taxaw way daw kii déggoo ma dama koy attaqué su neexee yàlla koñe ko gañe ko Fadja boobu muy wax maa ko foofu ay supporter Fadja maa ko moom Sida Fadja na dem laaj na dem laaj foofu waa Sida Fadja kan moom Sida Fadja maay borom koñam fi mu dëkk kii lu mu réeree koo wax lu mu réeree démb naa koo wax barbu yar waxal ak sa kii yeb na kii amul lenn lu moom Lamine kii amul lenn lenn lu may wax wax ba bëri dama bàyyi dama koy bàyyi wax bi waaye billahi wallahi wal kitaab boo jóg loo mun benn man Farba Diatta mun naa lu ko raw boo jóg maa la gën a pare fuuf war na Serigne Saloum Mbacké boo ñëwee maa xaw rek wër na alxuraanu karim billahi wallahi ñu ma bëre bëreloo ñoom aw ma lenn lenn loo xam ne dinaa la ko dinaa dinaa la bàyyi xel yow boo jóob doo te ci kàttanu suñu borom incha allah yaa xale jëlal lépp yaay favori jëlal lépp yàlla dàq bëre jëlal lépp waaye incha rabbi maa maa ngi waxee fii soreetul fii si arène nationale billahi wallahi wal kitaab dinaa jàpp daal la jël bu rëy léegi xale nga ci kàttanu yàlla léegi soreetul billahi na taxaw man du damay ñëw jàpp la teg la fële maa la dàq bëre fuuf naa ma fi di xeex ak yow mbër musuma duma bëre bëre bëre ba woon ay transfert bu ñuy jëndee série nii di ko yóbbu si équipe kon jar naa bu yàgg ay 32 millions d'euros laay jar parce que dama mën a bëre lan li may wax ne am na su fekkee barki alxuraan eh, mais moom eh, kii bu waxee damay duma bii bilaay mooy wax lu ko neex barki leeru alxuraan ak Serigne Sall yaakaar moo la gën a am maa la ëpp ay sañ seen suuf billahi yow yëmbal yëmbal woo bu sa koñ laaj ma gars yi xam nañ bu baax yaa ma xamul rek waaw Lamine ki yëmbal neex la fa yëmbal deux fois la fa dugg boo biir da koo daan boo yëmbal da koo daan kon yëmbal bii nii incha allah rabi kii combat bi xam nga soo gisee ma jël boo jël sax daanaka lamb lamb si boppam Lamine lamb moo waxul dëgg war na alxuraan promoteur bi xam nga baax la may wax man war ma taw fii si lamb fii du sama place fii du sama place te incha allah rabi ci kàttanu yàlla lay xam ne Fara Boudiène fii du place am maa la mun fuuf daa la duma bu du may métti daan la loolu na sëriñ Saliou jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. ci pour laa koy dóor mu xalaat ko mag la wër na borom Touba laay ba may def sem 2 laa ko saan muy bëre kii barki Seexul Xadim sem 2 maa ngi toog di jàng seraangu muy bëre sal arafas maanaam ay ñoom boy pir même génération lañ xëy na yàlla dafa dimbale ñun ñun ñoo ko xoolal maguñu ko de di ko ëpp ay combat dañ la ëpp ay combat moo tax barki Serigne Sallou Mbacké magu ma la barki Seexul Xadim 2000 la 2000 2000 2000 maa nga def jar foog daal di jàll barke Seydou Khadim ñaanu ma la. jërëjëf ñaanu ma la saraxu ma la damay jël si li ma moom muy farbu jar attaqué la koñe la jàpp la daan la fuuf nga doon def dara. rendez-vous le huit la incha allahu rabi moo sama. waaw maa ngi woo ñëpp parcelles yëpp 1 ba 26 bàyyi ma kenn waaye unité si sama waa koñ maa leen di woo di woo waa Fodja waa Fodja Gent bi 1 Gent bi 2 di woo monsieur le ministre Amadou Ba premier ministre maa ngi lay woo bu baax si combat bi di woo Nazer Bébé Ali. maa leen woo ci combat bi di woo Aliou Aliou Aliou maa ngi koy woo ci combat bi Aliou Wat maa ngi koy woo ci combat bi bu faru jar maa ngi koy bëggee di yëpp maa leen bu baax di leen na trop ma ko du ma ko taay di ko wax sonn na si man trop maa ngi koy a xam parce que yëpp bàyyi ma kenn waa SAS maa leen woo ci combat bi di woo sama jigéen jigéen faja yëpp maa leen di woo ci combat bi di woo sama rakk Adama Fallou Niang Yacine Gueye maa lay woo ci combat bi waaw taw rek même tuuti rek yaa ma gën a xam di woo Bamba yaa salaam sama doom yaay maa ngi koy woo ci combat bi ñoom bébé far bàyyi ma kenn daal bilaay walaay di woo waa dëkk o fogole séeréer mi sim naa nuun xooyaa nuun wuro na foges a gen jilaas joofu yooyu simal yaayam jiloor ñooy xooyaa nuun a combat fa nekke tant que combat bi fa waxee kay mi fa booy jóg de ñu dam daana pas combat ne ka wuro maa ko waxee koy ka may fa looy jërëjëf maa ngi woo samay mbokk képp kuy ñamul ñamul dëkk ñamul maa ngi lay woo ci combat bi li nga dalee sama dëkk ngiij faal sàkkal guy mbati sëy tu taneen xama njëw re waa njëyeen looyeen yi maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy xaali maa ngi leen di woo